waaw fekk def naa Miss Ziguinchor pare. Mm-hmm. so mu ñëw fii seet sama maam mu tombé ci Miss waaw. ok ma daal di atteindre tamit you know. nga win ko ma daal ko gagné lii. <laughs> but then again we're really proud of you am um, yaa ngi nekk tam America di def yu rafet am um, it's not easy pour African nekk uh, in a foreign country di win ñi nga xam ne ñoo fa nekk plus Nigerian you know actress yi nga xam ne ñu ngi leen a seetaan yëpp you beat all of them how do you feel about that. Um, man dama ne in this world there no competition for Binta I love challenging and I love competition. so dama gëm sama bopp te li tax nag may gën a def ay ayda mooy damay représenté ñaari dëkk. Mm-hmm. di doom Sénégambia nar a yëkkati flag Gambia nar a yëkkati flag Sénégal. xam nga nekk lu yomb. so loolu yëpp daf ma may jom may gën a def di gën a liggéey pour rek mën a yëkkati sama ñaar dëkk ci kaw. ci Amérique li tax ma raw yeneen acteurs yi actrices yi ñoo ma gën a yàgg ci industrie bi. Mm-hmm. ci naaluwut mais Nigerian. Okay. ma nigérienne man sénégambienne actrice la di représenter di sénégambien soo yëf yi daa mbir mi comme nañu naa wërsëg bu yàlla indee wërsëg comprendre nga donc ñoo ngi ci jiitu mais quand même fu ñu dem fu ne à make sure Gambian Sénégal national mm-hmm. okay that, that that's really nice that's amazing but right now duñ def dara lu ñu am a short break let's have a short break we'll be right back isma celebrity fi okay lu yes. taxaw wax lolu because they all broke our celebrity dañ <laughs> am sen agenda man ma am suma agenda te man xamna ne fuma djublu djublu way bu bax la so yoyu yoyu du suma problème duma duma len defale online ah. not be able to eat, must not be able to sleep, must think about them 25-7 more than every waking moment and dream about them if you get to sleep. Enjoy super fast high-speed internet for less. Gemcell 3G, beyond your imagination. Yaibarum. All right, welcome back. I'm uh, definitely like a little bit of research these uh, I built. Gis nañ win like not only benn affaire wat ci the moment ne moom nga win. At first, at first, duggee Amérique taw sax taw léegi sama foot mooy américain fi am bu ñu selfish buñ ko use as a weapon pour lock di Gambia comprendre fu may waxee donc euh, boo gisee ma jóg léegi taxaw Binta di jàppale jigéen ñi jigéen lu mu jiite rek te mu jublu ci lu baax rek jaamu day am mm-hmm. jigéen lu mu jiite te mu jublu ci lu bon rek lu bon rek am donc ma bëgg man mi nga xamante ne am the voice am the spokesperson for my population maa nañu liggéey mm-hmm. dama use positive ak solution mu nekk sama xarit di ko communicate ci askan bi pour ñu use ko tamit it work for me and it work for anybody else because dafa am solo ndax fu mu nekk nii li njëkkee Afrique day dellu si Afrique la ñuy ut fële mu ngi fii dañoo bàyyi rek ñu naan nañ ko uti fële mais mm-hmm. li am file lépp fii la jógee donc Binta dina empowering women ñu jàppale suñu góor ñi ndaxte dëkk bu ñàkk stress rek happiness. Mhm. jàmm am boo gisee may jàppale jigéen yi surtout jigéen Casamance yi dama bëgg jàmm si sama Casamance. waaw ndaxte aw ma dara lu dul sama Casamance moom lay tiitaroo. Mhm. Binta fu mu toog jàmm Casamance lay wuyoo moom laay toogee moom laay fanaanee di ko génn sax te dama xam ne gëm yàlla ne bës dina am sa jàmm Casamance dina agsi parce que ñu ngi ci wetam cercle bu mag la woon mais. raw nañ ko ba mu tuuti mhm. lu des barewul jigéen ñi may jàppale nag sama ñàkk la Mm-hmm. damay liggéey ku ma gis xam naa mais Binta la muy liggéey yaakaar na benn doom aadama du ko liggéey parce que dama bëgg sama réew. Mm-hmm. bëgg joolaa ga ma doon. parce que boo déggee ñi naan joolaa a jamaat jom te dafa suur. Mm-hmm. démba soog a ñëw. moo tax nag ma jël loolu di ko use pour jàppale askan bi ndax teg jàmm. waaw ok. xam naa ne ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ñu ngi roy si yow lu bëri but Binta I just want to know like yow fu mu nekk di right now yan projects nga nekk di work on because understand na ne yaa ngi delluwaat USA and then bëgg naa nga share ak ñun rek soo delloo si yan projects nga nekk di yëngu. bu ma delloo US mooy di same thing comme as usual lu may def mooy liggéeyuwaat ñëfiwaat boo xasee ba dugg rek daal di jublaat ñëw fii encore dëkk bi di invest mais li ma gën a amal solo mooy Aida man li ma bëgg mooy as Gambien. Mm-hmm. nañ jéem a support. suñu star yi acteurs yi mm-hmm. woykat yi lépp gamb Gambia am na ko fii soo la ngay génnee di support di support keneen ka fi dëkkul mm-hmm. du ko invest fii da koy yóbbu invest ko ci dëkkam mm-hmm. mi mi naat mi avancé donc nag nañ xale yi ñu ngi woy xale yaa ngi def lu nekk damay toog di seetaan Banjul naat ba mu amee ba léegi toogatuma ngay def soo rafet di expose the best of the Gambia. thank you so li ñu war a def mooy ñun as a Gambien ak képp ku fi nekk tey yàlla may la kàttan. Mm-hmm. na nga gëstu jàppale tey la fi nekk ci Gambia pour jëm kanam parce que tey boo xoolee tey d'accord ma Miss Tourism tey mm-hmm. muy am Guinée Équatoriale te Gambia ak téeméer junni yoon li tax ñi ngi pousse seen industrie mm-hmm. tey yéen mi xale yi ndaw jóg tey ngeen di liggéey lu mel nii képp ka fi nekk tey bëgg Gambia te ñu am paawoo ñi mën a jàppale tey lii dem kanam loo ci def lu ne sàndiwoo Gambia ngay defar. ku yàq Gambia Gambia ngay yàq. Mhm. ku wax ci Gambia lu baax Gambia ngay def parce que boo taxawee tey ne man damay saaga ñu ne foo jëg nga ne Gambien nga mhm. saago Gambia sa bopp nga saaga donc damay ñaan yàlla ñun aas Gambien. Mhm. nañu fonk li fi nekk te doylu ko. ñu pousse ko mu jëm kanam te bàyyi di invest fële xale yaa ngi fii right kon nak waga me ñoko deggandoo waye bala may bay binta mu dem rek duma defati dara lu dul wax la nga joxe sa mujjenteli cadeau rek wagambe ñepp ak la dekk setat lumay def moy di sante wagambe ba piko sama ñew kéro ba may aksi fi aéroport bi la fa amone dafa daw yaram fekk na fancy joggi ay sankuna ñu joggé bu sumbala ñu joggé casamance ay auto yu bari mun ma len fay mhm. taxaw yep lool yep lan ay surprise la pour ak kay ma ak trophée bi. Mm-hmm. di sant leen sant bu baax tamit di sant sama président docteur Yaya Adjie Diémé liggéey bu rafet bu muy def ci man xam ne bu ma ñëwee di wane carrément dañoo fier ci industrie. ci movie industrie ba Gambia pour mu jëm kanam. di leen sant ba ay tam di sant tamit waa Banjul naa it ndaxte tey mënoo ngeen ne comme que biñ te dafa yàkkam dee de mun ñu ko am mais def ngeen le tout ma toog fii tey. participer seen show di leen tenkalaat seen liggéey rafet na. ndaxte lii mu commencé na continuer nii fa ñu jëm yàlla rek a xam te yàlla nañu yàlla la fàcceel. amiin Ayda nga fi yàgg sa liggéey rafet na. thank you very much um, lii daal la Binta am pour wax waaye balaa um, uh, ñuy dellu si rek duñ def dara du play uh, vidéo bi nga xamante ne moom lañ um, defaral Binta dinañ wane liggéey yi nga xam ne mu ko def ak jigéen yi Casamance yi ak Gambia fi and we'll be right back thank you very much Binta I'm so glad to have you on the show thank you. D'accord, je comprends. Ça veut dire qu'on peut faire une extension. faire l'extension.